هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إبليس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم mbokki julli di mbokki taalibe yi gannaaw ban sante suñu borom subhaanahu wa taala ñoo ngi julli ci jaamam ba di sang ci ñëpp di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom yàlla na dolli def ci réew mi jàmm jiital ci suñu xalif généraux yi nga xam ne ñooy suñu kilifa yi ngànk diine gi di ci jiital cheikh mohamadul muntaka ibnu cheikh mohamadul bachir di ko ñaanam yàgg fi lool te gën a wér noonee lan koy toftalee Serigne Babacar Sy ibnu Cheikh Mouhamadinil Mansour di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te gën a wér ak Pape Mahi Niass ak mbooleem xalif généraux yi nga xam ne ñoom ci yoon ñoo ngi ci réew mi macha allah seen taxawaay ñëpp a ngi koy rafetlu te di leen ñaanal suñu borom yàgg leen defal jàmm leen fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak Talibé TV ak seen xarit seen bokki Talibé seen soppe cuun bëgg Bàmba ci seen émission bopp bii nga xam ni saa su ne bu weeru gàmmu teroo nga xam ni yonent yàlla Muhammad moo moom weer yëpp waaye weeru gàmmu da ca gën a fés ngir saa su ne ci la gane woon jamono saa laakaar naan loolu duñ ci mën a sori nag ndax daje nañ fàkk boroom xam-xam di oustaz macha allah di euh, mën nañ ko wax sax nabien ndax it euh, nabien gën métier bu lu dul nabien kon di oustaz Mouhamed mbay bu Sen TV oustaz ñu ngi lay nuyu di la baa nga saafanteeg soppe yi lay seetaan tatimu saalihaat wa bi fadlihi tataxaqaqu maqasid alxaayaati wa bi tawfiqihi tatanazzalul xayraatu wal barakaatu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakumul islaama diinan wasalaatu wasalaamu ala ayni rahmati rabbaniyati والياقوتة المتحققة خائتة بمركز الفهوم والمعاني صاحب ناصر الحق بالحق طلعت الحق بالحق من الحق إلى الحق حق حقائق والحق حقه ولا حق يحق بحقه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى بهدي إلى يوم الدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى بهدي إلى يوم الدين هاجب بامبا Hmm. maa ngi laa nuyu bu baax a baax borom dàkkantal bu wóor bi te leer te mooy organisé wu na ba tuddee boppam bëgg Bàmba bëgg xaadim <laughs> tabaarakallaahu ndeysaan nee naa ko ak ngaa yeewu <laughs> yàlla kenn ku ne am na kum lay rusee waaye moom daal hmm. fexe na ba jël turam bi xaj-xajal ci loolu xam naa turu dabaatal la hmm. waaye organiser nga ba du bu newul ci këyit yi mu ngi ci xel yi. <laughs> dëgg la tabaarakallaahu yal na yàlla sàmm la aar nuyu technicien bi nga xamante ni moom nga àndal. Mhm. tabaarakallaahu nuyu mbooleem koo xamante ni rek euh, bu liy dooree ba nga koy seetaan daa ci am mbégte. Mhm. di ci jégalu koo xamante ni itam bu ci njuum te amee te nil ne parfait mu comprendre ñu noonu. Mhm. yal yàlla defal dégg ak topp. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla dégg defal dégg ak topp. oustaz yaakaar yaakaar naa nag benn actualité valable atul. waratuñu waxtaanee leneen. ndax it àdduna waruñu waxtaanee leneen sax ndax rawatina fi mu toll nii. yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne moo waral lu mën a am oustaz léegi tey tey bu ñu mënee def le portrait de yonent bi mooy man ma dugg si ci diine xaw ma koy yonent bi na naka nga ma mën a présenter yonent bi. Bamba bu ma la koy présenter dama lay présenter askan wa mu bokk. ni la sama waa jooju daal. sallallahu alayhi wa sallam màkka la gane àdduna lu jiitu muy gane màkka àdduna yàlla boole na kook baay bu baax bu mu tegul bët di abdullahi boole kook yaaju ñoŋ te sàmm te yàgguñu ñoom ñaar bi ko way juróom wu jigéen ëmbe ba mu am ñaari weer ci biir way juróom ci la baayam dem kon nee naa la doom ju xàmmewul baayam la waaye ndekete yoo daa am lu ci yàlla namm doom la ju jot a yaay ndekete yoo dafa am lu ci yàlla namm ki dugg ci lislaam te xamul yonent bi ñu jàngal ko ko ni ko mu ngi noonu abdalaay abdul mutalib hashim abdu manaaf xusay kilaab murata kaab luway xaalib fihr malik kinaana xusayma mudrika ilias mudar nizar maat addanaan maam yu góor yaa ngoog sallallahu alayhi wa sallam pour ma dag bu doon jigéen ñi da nga naan rek fa hunna fatimatun salma wa atikatun hubbi wa fatimatun hindun wax hindun wax si mi bintu saybana bil wawi salma wa layla udalam tulami la tansa atikatun wa baratun summa sa'du zil karami layla rababun sawdatun wa maadatul il apiyaati taaxtani ci ñu jigéen ni askanam goor góor ñu kenn ku nekk cay sa soxna mhm. waaye yonent bi doo ko jàng ci askan booy doog a dugg ci lislaam dana lay jàngal mooy kan ci mbaax mooy kan ci tolérance mhm. Bamba nabi daan wax naan jàmbaar nekkul ci ku gaaw a dóor mhm. wala ku am doole jàmbaar mooy ki am maîtrise saa yu mere nga jàngal ko kuy doog a dugg ci lislaam ni la yàlla daf ko yónni ni ko nag wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil alamin dama laa yónni rek ngay jëm yërmande doo koy indil nit ki ni ko principe yi moo lay bàyyi ci lislaam mhm. nga xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah oustaz Mouhamed Mbaye léegi tey yonent bi euh, ñëpp xam nañu euh, wala ñi si ëpp xam nañu ni diw moo nekk way juram mhm. muy euh, sunu baay Abdallah way juram bu jigéen di sunu yaay Amina mhm. léegi ñu ni ci yan contexte tey lan wala ci yan contexte la sunu waay sunu way jur Abdallah nga xam ni moo yonent bi fekkantewuñ wuñ fi am na ñu nettali nii dafa wuti woon lu mu. Euh, wala oustaz sax du xam naa dama ciy. waaw waaw waaw dafa demoon Cham. Mhm. Amina wax ak moom. Mhm. ni ko Alaaji li gu li jigéen di gis bu tolloo ci weer gisuma ko. Amina wax ko loolu. Mhm. bàyyi na bi déparé màkk jëm Cham. bi mu demee Cham. def fa weer ak lu topp. ñaari weer jege. mu war a wëlbati ku ñibbisi màkka bi mu ñëwee ba dëkk bu ñu ab waa mu sentir ni yaramam neexul. mu nit ñi mu àndal man de sama yaram neexul wér ma yetu ma may dem màkk boobu bu doon oto da ngay noppalu waaye giléem la giléem pour nga war ci ñaar du xaw a yomb mu santir ni yaram wi diis na booba yàlla namm na ni sama waa ji bëggal bëgguma ku ko yar fiir naa ci fiir goo xam ne xajaluma ci bàyyi li ma soxloon mooy leer gi mënta ñëw ci Amina direct mm, faw mu jaar ci Abdalahi ñëw ci Amina Abdalahi nag maa ngi lay remercier di la jaajëfal waaye ay na yéwén la ma bëggoon te mu jaar ci yow dem na ci soxna si gërëm naa la sant naa la léegi nag faw nga noppalu doonte xale bu góor nga mhm. fukki at ak juróom-ñett kaay toog aljana xaar sa waaja ñu ñu lay dawalal film bi nga koy xool xam ni kii yaay baayam ci zahir mhm. abdallah bi mu tollee foofu mhm. yëg ni day dem mu jël benn weñ bu mu yoroon nit ñi mu àndaloon bu ngeen demee joxal leen ma ko sama soxna nee leen ko lu yàgg-yàgg bu fekkee ne am na doom bu dee góor mm-hmm. nan na ko ko tëggal defal ko ko jaaro mu xoolee ma ko ndax booba ndax booba euh, euh, euh, photo amul mm-hmm. bu dee jigéen na ko def lam xoolee ma ko mm-hmm. mais bi bàyyi Abdoulaye génnee àdduna bàyyi Abdoulaye ñu denc ko bi ñuy ñëw fekk na timis gi xaaj ñépp xam nañ ñu njëggu saam gaa ngi ñëw yaayu na bi pare reer bi mu pare reer am ñu ñëw jàmm sante dugg kër Abdul Mutalib laaj Amina ñu ne leen ma ñu waxtaan ak mom ni ko ay na yéwén sa borom kër Abdallah génn aduna dafa ndorono yo yoox joy ben benn fo xam mom ni ko attention de yàlla neena amna lo xamni mo xam ne moo la ko dencal moo ëpp loolu moo wax lolu musta deg xana xamone yaay nabi wayna bayu nabi ami suñu yaay amina lu rar la lay wax alaaji man dama bëgg njool màkka de sallallahu alayhi wasallam sallam yaayu nabi biñ ko taggé bayu nabi mu dem ba yuuxu am xaatif bu ne ko bul wax liñ la dencël upp dafa way afa janibil batha amin ali hashimin وجاور لحدا خارجا في الغماغم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشيت راح ويحمل نصريره تعاوره أصدقاؤه في التزاحم وإن تك غالته المنونة وريبها فكان معطاء كثير التراحم أمن فكان معطاء كثير التراحم لولا يا أمين وي ni ay way goor gu baax dem na yàggu fi yàqu xamna ni ciofel bi wa makka am ci mom bu fekkon ni de dan koy joxe can makka dajale li ñu yor joxe ko bayiko mu dund ndax bi ne ci mom gisul ba melam ba seti wu ko batay. ñu doxal di doxal di doxal ba 6 mois mhm. yaay amina dem ci all bi rot bamba mhm. bimu demé ci all bi rot mhm. góor gu mu ni kay nga rotal ma nga ni ko wutil jëkkër góor gu mu ni kay rotal ma nga ko da nga ay gaf da nga ñew rek sa dem yaay na bi di góorgóorlu di góorgóorlu ba rootal boppam root jafewul yenoo jafe mu attaqué góor ñi kaay leen ngeen yéen ma góor ñi ko oh, da ngaa ay gaax yow benn góor du la jege góor ñi dem góor ñi dem ba yaayu na bi des ci àll bi mu ni cëy sama góor ga laa biir ga moom donte sëy bi yàggul ay wéer la diire waaye jot naa jàng ci moom jikko yoo xam ne heure bi bu fekkoon may root dina hmm. dina ma yen dina ma wayal ndax ndax ndax yar gi ci moom jékk ba ci yàgg amina dégg yaay hmm. mu xool penku ba mu jeex gisul li naan yaay mu déggaat yaay Amina xool xool gisul yaay mu ni ko yaay man mi ci sa biir may wax ak yow yaay ndax bu ma yan la doo ko nettali waa Màkka nabi yaayam ñu teg mu jékk ba ci ak génn loxo leer téel yaayam bagaan gi ànd ak moom dugg biir màkkatal mukarama yàlla yónni benn xaatif ni amina mi bu ma ko bàyyee dina jaaxle de mbaa bu yeggee ci abdul mutalib dina ko wax mu gis min baadi ma xat xalaa waawun yu la ha ha anti humiltil badra sayidal umami ee yow amina defal nañ la écho. Mhm. yàlla nee na ci sa biir bi góor a ngi ci. lu yàlla bind moo ci gën ci sixième mois lañ ko ko wax. ni ko bàyyam nag génn na àdduna ñetti weer a des ci kanam. Mhm. waxal ni leen bu juddoo buñ ko tuddee bàyyam nañ ko tuddee Muhammad isa wadaatihi bu juddoo. Mhm. sammihi nañu ko tuddee Muhammadan Muhammad. al amraktu mi ay kitmaanin fa taxtani bi lu ngeen ci gis muy lu yéeme bu leen ko nettali xam leen ni yàlla ay pareel waayam ji. la ilaha judd. baayam yaayam ba tey xamul fu mu suul baayam un an ñu teel koo jox xalimatu saadiya mais li ma gën a neex ci xalima est-ce que yëg nga ni mbaam ma njëkk a tàgg yonent ci bàyyi mbaam uh-huh. moo njëkk a tàgg yonent bi bi mu nga nee àdduna mus ngaa dégg loolu déedéet nu mu tuddati sama waa ji uh-huh. cheikh xalima dañu daan def nawetaani uh-huh. bamba bu nàmpal mosaana am dañ naan dëkk nangam am na gone yu fa judd nañu daw ñu ko ñu nampal ñu ngir lan ngir bëgg xalé yi dégg arab bu woor ba paré nampu soow ngir am eh, seen seen yax yi dëgër mm-hmm. wa sa'd mm-hmm. départ jëm makka halimatu mm-hmm. sa'd ya tok ba ci yag yaram bi mas fekk am kat bu fa jaaroon ni leen yeen wa sa'd par ren gi ha ah, dëkk bi dina nadde dëkk bu ñu wax makka de goné yi fa juddu bari nan te mbaa yéeg nga ni loolu dinaa la euh, mbaa yëg nga ni bi njool màkka bi ko yaayam ëmbee mm-hmm. yàlla dafa ne mboolem jigéen bu nekk màkka ak li ko wër amul droit jur jigéen ndax euh, déggoo gaa ñi naan at moom ma juddu ku ñaaw juddu wu ci njool màkka at mum juddu jigéen juddu wu ci wala nisaa mboolem jigéen bu nekkoon màkka azina digal na la arrahmaanu bur yàlla xam la zukurin amoo leen droit ëmb jigéen ndax kii ñëw góor yàlla la góor doo nga judd at moom jigéen juddu wu ci wala nisaa mos ngaa dégg <laughs> azina rahmanu xam la zukurin al aamu ikraman li muhtaram yalla neena jigen du judd ay gor do ngay judd na gor ñi ñëw ñu naroon a doon jigen tourné na ko man yalla def na ko gor ñom ñepp ngir terele ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalimatu saadiya bi bi mu toogee ba ci yàgg ñepp yi dem mën ta dem mu dugg ci ginnaaw kërëm gis fa mbam mu maget mhm. mu ni ay way di sama yonu makka bi du neex fekk ka bi neena len dekk bay makka de sangu makka ak medina dina fa juddo daw len du ñaka kenen nàmpal ko ci yeen halima stress am mooy ndeysaan ay waay ji man de bu ko nàmpal soxna ko gis lu ci tok ba ci yag am al bu ko dikkel mu tourner ni mbam mi bu fekke ni warna na dem nàmpali warna ñu dem makka mhm. ma jakkalo gone gogu ma ngi lay ñaan ci barke gone gi taxaw mako yalla nga juk ñu dem makka tal mukarama sax dag makka ak sori mbam mi ni ñokke juk taxaw halima yek jëkkëram yek mbaam yi njëkkee nañ leen ay fan parce que seen mbaam daa loof mbaam mi daw ba ci désert bi attanatu ko mu daanu xëm xalimatu saadiya toog dëf jekki ba caag leerug yonent bi di ko xeeñ mu jël ndox dóor mbaam mi ni ko bu fekkee ni war nañoo dugg màkkatal mu karama ma jàkkaarloo gone googu yàlla ñu ànd ak yow ba màkk mbaam mi ni bërit jug ñoo ñoo mbaam mi ba màkk waaye comme jiitu nañ leen ñuy rappelé ku war a nàmpal yonent bi mm-hmm. bisket yi ku ko jox ween mu bañ muy ndeyjoor muy càmmoñ ñuy joxe di joxe di joxe bi ni joxe nonu nak ben temps saad ya xol bopam nek am màgget muni xale yi ngeen balma ak ni sen wee taxawé ak ni sen yaram rafete xale bi mën leena gàntal kon man mère bu màgget bi ci wéñu laxi awma yaakar tok ci ben ruq ñi rappel di rappel di rappel ba ñu jeex abdul mutalib mami yonent bi xol halima mu tok mun ko lula fi indi mun ko seetaan ci ndax bo amna kersay wax nàmpal mun ko xana nàmpal ci wo mu ne ko ah man ko dama amatul yaakaar ci xale bi mu ne ko kay essayé xale ma yegg si ñaan ndox ñu may leen ma ma raxas sama ween damaa sonnee àll ñu may ko mu raxas ay weenam mhm. rëpp ñaari tànkam ci suuf ni àlleen ma ko ñu jël nday ndeyjooru njool maa ko jox ko xalimatu saad ya téye njol màkk ni bismika allahuma jox weenu ndeyjoor mu namp rek xalima way njol màkk sallallahu alayhi wa sallam ni ko haza <laughs> waa jaa ngi cheikh dégg nga jox ko weenu càmmoñ njol màkk bañ mu joxaat ko ndeyjoor mu nangu mu joxaat ko càmmoñ mu bañ jibril nee na bi mu nekkee mag man ak moom toog nañu di waxtaan man ko waa sama waa ji yow bi la xalimay nàmpal mm-hmm. dalaa jox ndeyjoor nga nàmp lu taxaw nàmpoo càmmoñ mu ni ko booba dafa am xale yu mu doon nàmpal këram xale yi am habitude di nàmpee càmmeñ ngir ormal ma bàyyil ma ndeyjoor xam ne maay borom bu ma naanee ndeyjoor naan càmmeñ du ngor yàlla ni ma yemal ci ndeyjoor bi bàyyil xale yooyu ak càmmoñ jibril ni ko laa ilaa xale buy sédd xam nga ne bu yowmal xiyaame ko jox aljana gaa ñu dugg ci laa ilaha illallah xanaa pour sunu njiit yi laa ilaa ñun imaam eh, eh, gis nga nit ñi dañuy jaawale njiitum réew ak président de la république mm-hmm. njiitum réew moo ëpp doole njiitum réew boo ko doonee da nga am yërmande irhamu mhm. man fil ardi yarhamukum man fis sama yalla neena ñi ci suuf bo dawale yermane ci ñom mhm. ki ci kaw yërëm la jël ciofel def ci nit ñi ñu lay voteel at mo dugg ta do xex do yëkkati tank waye bo leen yërëmul yalla neena ñuy ak yow ba dootu ñu nawati te bu mhm. leen nexe ñu jëlé leen fi ndax li ño fela force alimatu saadiya ñu wara ñibbi ñu jël mbo njol màkka xalimaa ci kanam jëkkër jaa ni jël ñol makka tek ci ginaaw ndax mbam ginaaw lay gëna yaato mbam mi demul ñu mbam mi bañ ñu jël njool màkka teg ci seen diggante ñoom ñaar xalima jiitu mhm. ñu dàq mbaam mi bañ mhm. ñu jël njool màkka teg ci kanamu mbaam mi nakate yoo yàlla day wone ni imaamul anbiya yi yonent bi kenn amul droit jiitu ko ñu jël njool màkka teg ci kanamu mbaam mi dàq mbaam mi roof première <laughs> jàpp mbaam yi mhm. di leen faj benn par benn vif vif mbaam mi ma la waxoon ni la daam problème voyage de mooy bu màgget bi bu màgget bi jàpp mbaam yi yoonu saad naan vif vif di romb mbaam mi di romb mbaam mi ba mbaam mi ñu gënoon yaakaar ni bu doon oto la tey dañuy wax ni mooy mooy mooy V8 bi uh-huh. xali mbaam mi daw ba doublé ko mbaam moom daw ba tolloog moom ni ko alaaji yow faw ma laaj la foo jaar <laughs> ale bi di nga yeexee ak retour bi fa takallama ma ngay wax <laughs> alximaaru mbaam mi bi qudratillahi ci kàttanu yàlla mbaam mi wax de uh-huh. نفخال إيه يا بني سعدين يني سعد بام منك تلي وخ يننتي نان لم تتعجبوا خنا يمولين من البياني تلوير لي تلير لي تور لي ني نكو لو خيو مني لا قد بني ورنما سيد الاولين كيرم مو كيغا خامي مو ولا اخرين كيرم يوم الخيام ني نكو لو خيو مني فبي بركه بي موما واري زالا تي لا دنيير دون في سما يوي صلى الله عليه وسلم صلى شيخ كرم دا فا بين بن خار بو خامي بي kër xalima bu xëyee dañ koy jox lekk du dox du def dara xalima yegg si sànd mhm. jël njool màkka tàngoor leen jàpp teg ko ci birsu mhm. dugg di sangu di xëppoo moom ak boroom këram mhm. bi ñu duggee nakate xar mi nga xam ne mënul woon dox mënul dara bi njool màkka duggee ci kër gi leer gi xeeñ ko xar mi daa kontaan ba jóg taxaw di dox nabi sa tërandoo di dox di dox ba tim bagan gi ñu duggal ndol mak mom xarmi mi foo sayyidina muhammad taqabbala rasu nabi shaatun lo wo bi shuhudi khalimatin wa qad sajjalat wallat ilal ghanami jëkkëru xalima génn gis xar mu mustado xar mo xamni bi mu juddo ci bir keur gi paralyser lu walé jëkkëru khalima gis xar mi fóon bopp njool màkka yamu ci xar mee da woowi xar ya ca àll ba ni leen daw leen njool màkka nga kër ga xar mi dafa delu ilal xanami woowu yeneen xar yi ni len kay len xol ndol makanam pusina bi xari tele tëllee Halima gis xarmi dawul dox diriser xari biko xari laaje lutax nga dox dafa ni len dama don sentir ne waa ji war nàmp ci tama ñaan ni dama buma sañon mako recevoir mu dugg ci ci kër gi mo waralun ma fon jebe jeukeru halima dadi way la khat sadaqtu mawludan aziman jamil waji misla badr al ashrafi takamala sa'ad man rabbahu tiflan wa arda wa kana alayhi ashaqun falam talid nisaa lahu masilan yujiu bi amrihi bi amri al mawqif sa man yatul zamanuhu bi anna muhammadan habur musaddiqun li la jëkkëru xalima way musoko deg dedet cheikh jeukeru halima mo way lolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël ko téye ci kër gi. Mm. mais bi nu koy téye amoon na temps yoo xam ne dañoo tiit ba bëgg ko delloo mu ñibbi. ndax karaama euh, ndax ndax ndax li leen jaaxal Cheikh mm. Bamba. Mm. li leen jaaxal mooy bu sangu jotee. ñu war koo jëlee ci lal bi pour sangu ko buñ ñëwee duñ ko gis. bu jëkkëru Halima dawee di xool yonent bi ndeyjoor dugg ci yenn néeg yi du ko gis bu dawee ci biti du ko gis xale yi mu yarandool te ñu màgg te mag yonent bi du gis kenn téye ko ci bu woowee Halima ni ko ana Muhammad mu ni mu ngi ci lal bi. bu dawee ñoom ñaar duñ ko gis bu dawee génn ci biti dégg leer gi mu mel ne luy wax ci néeg bi bu ndeelu suwaatee gis ko mu changé ay yére te xamuñu ki koy sang kan la xool mbàjj bu bees bu bokk ak mbàjj bi nu sàngee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xetu parfum bi xeeñ xam nga baay baay njool màkka mel ni kuy wax baay baay di wax façon arabe yoo xam ne ñoom xalimatu saadiya dëkk bi miinuñu ko jëkkër ji ni ko kaañ ko delloo kii du xale kii am 32 daan Eh. am ay sàkkar yàlla ñu ñu ko ñu teel ñu koo jox muy làkk ay arab sama seexu yàlla baa ngi noonu eh, daal ni nañu ko delloo bi nu bi nu woo bi nu bindee lettre ak baay ak yaayam yaayam ni leen téye leen ko fa lu ngeen gis ngeen noppi bi mu amee 6 ans ak ci lañ ko delloowaat yaayam ndeysaan mu dellu siwaat ci ay loxo yaayam bi mu egsee mayetul yaayam jàmm mm-hmm. yonent bi chaque jour yaay ana sama papa sallallahu alayhi wa mu dem na mm-hmm. xamul lu xew yaay ana sama papa mm-hmm. su bàgg ngoon yaa ji daf koy naxee ni ko sa bàyyi dafa dem chambre defi commerce bu ñu bisee di am njëg mu war a ñëw hmm. bamba hmm. njëg mi war a ñëw yaayam ni ko sa bàyyi ci njëg mi lay ñëw hmm. njol makk nday sànn booba bu njëg mi mu sànn ñëw day doon feet màkka ñépp dañu génn di teer wa isaar aw tijaratan aw lahwan infadu ilayha wa tarakuka xaaiman xul ma indalahi xayru min allahi wa min atijara wala xayru raziqin njëg maa ngay ñëw problème bi mooy nabi xamul baayam waaye day gis paa bu mu gis ngay ree day jàpp ne yow moom moom ngay ree yaay baayam Euh, waaye comme nitu kersa la day taxaw di xaar nga akulaat ko. ndeysaan xale yi di songu seen ay baay muy xool baay xale yi di songu seen ay baay muy xool baay ba ci yàgg muy xale yi di wàññee ba des ñetti xale. Mm-hmm. ñaar ak moom ñaari xale ak moom ñaari paa di ñëw comme normalement ñaari paa yi ñaari xale lañu war a jël mu des benn xale. Uh-huh. benn paa bi wàcc. doomam daw song ko. mu des benn paa ak moom ak benn xale. ak ñaari xale. ak benn xale benn paa mooy ñëw. Uh-huh. ak ak moom ak benn xale. muy xool xale bi di xool di xool paa bi. di xool paa bi kën la jur ci ñoom ñaar. paa bi di ree njool màkk di muñ. sallallahu alayhi wa sallam xale bi di muñ. na bi xalaat ni kii kan la jur ci ñun ñaar. ñu ñëw ba jege si paa bi ak fu fobee doom ji suuf xëcc loxo bi teg ci kaw gileem bi mu taxaw xoor désertu Sham gisul gileem gisatul nit. mu xool njëg mi dem mu toog ay waxtu gestu gisul kenn sallallahu alayhi wa sallam mu tourné ñëw ci kër gi ne yaay ana sama papa xaar naa njëg mi recevoir naa ñëpp gisuma ci sama papa yaa ji daal di ko ni ko Moustapha pour ma dalal sa xel sa dafa nelaw bi ma la ëmbee loolu yàgg na mun ko yaay nga woon ma bàmmeelam yaa ji ni ko bi ma bi ma ñëwee màkk ba tey delluwaatuma Medina yaayu na bi Medina la jóge sëy si màkk moo waral yàlla cëralee màkk juddoom cëralee deewoom Medina mm-hmm. ndax yaayam mm-hmm. mun ko waaye nag faw ñu dem ma seeti sa baay mhm. fi nu ko suul bu ma seetee sa ay nijaay gis nga Bamba mhm. nabi bi mu seetee ay nijaayam ak yaayam mhm. bi nu dellu see ba yaayam ni ko fii mooy sa bàmmeelu baay fi mu toog uuf yonent bi fa la yàlla yu ni malaakal mawti ni ko fee laa bëgg yaayu nabi des fa laa ilaha illallah na fa des nabi fi mu toog ñu xool bàmmeelu yaayam malaakal mawtee ngi rocc ci ruuxu yaayam amina amina ngi sukkuraat njol maakaa ngi ci kaw yaayam toog yaayam jël ay baaraamam roof ci baaraam yonent bi te li ma leex nattal bu baax jamono ji mu koy dal amul mag bu góor amul raq bu góor amul mag bu jigéen amul raq bu jigéen amul ku ko wéttali cundum moom rek la li gars yi naan fils unique kase amul mag amul raq amul ku mbokkal baay amul ku mbokkal ndey ak baay yaayam di sukuraat léeg-léeg yaayam xam ne day dem jël ay loxo ndeyjooram roof ay loxoy njool màkk fóon ko ndeyjoor fóon ko càmm ñu ko kullu hayyin mayit ay waaye luy day dee wa lu mës a bees dina ràpp ci yàlla di xool yonent bi di xool ba ci yàgg rek mu lem loos wuy wuyu ji boroomam ñu denc ko foofu boobu ummu ay man a jaamu yaayam mu ngi toog waaye xamul ne yaay ji dem na njëg mi jógee Saam jëm Màkka ñoo gis naaj bu tàng jër hmm. yaayu bi toog jël bopp bi lem ci loosu bi hmm. ñu ni waaw ndaw sële ak naaj bee mu toog ak xale bi xanaa amut yërmande wala dañoo am problème ndox xaaral ñu wàcc may leen ndox bi nu wàccee njëg mi ba ñëwul laal yaayu nabi mu ni janjañ daanu ñu ni umma aymana jaamu amina waaw yow kii nga àndal yëgoon yi dee na dafa tiit ba jóg taxaw waaye ci gàttal xam nga lu daw yaram hmm. bi ñu xoolee yonent bi ni euh, booba cheikh comme comme comme Sénégal lébu bu waxee da ngay xam ni kii uh-huh. lébu la waaw bokk waaw da xam ni kii lébu la hmm. noonu la arab yi meloon arab yi ci seen biir hmm. kenn ku ne foo làkk dañuy xam fi nga bokk ba ci seen karaw daf ciy feeñ mais bi ñu xoolee njool maaka lañ xam ni Xuraysh la bokk bi ñu xoolee Xuraysh dañoo xam ne Abdou Manaf Abdul Mutalib maamam la ci yàlla ñu defar yaayam denc ci wetu baayam jël sayduna muhammad jox ummu aymana pour mu war koo delloo wa ummu aymana baadal ummi taxmilahu li jaddihi shaybat alhamdulillah azimi mais yaay moo neex dañuy jël njool màkk jox yaayam jox jox ummu aymana nabi ànd ak ummu aymana yaa ji ale bi daf ko doon wayal ay maamam retour bi ñu boole ko ummu aymana ummu aymana teg yonent bi ci giléem bi waaye problème bi mooy taggalu ko ay maamam su ne ko ku ma jur rek umu ay mën a day jëllale muy dem ba ci yàgg mu nit mu tëb giléem bi umu ay mën a ni ko foo jëm mu ni ko an sama yaay ndax bi àndee ba léegi xamu ba xam mar naa naan xamu ba xam xiif naa te bi ma ànd jigéen jooju ba tey balaa may xiif dinaa lekk balaa may naan ma xam balaa may mar naan ma xam ni kon mooy sama yaay mm-hmm. wàcc ci la dawaate ba ci bàmmeelu yaayam toog malaayka yi bi njool màkk defee loolu bu doon ay nit la nu seen yaram dafa daw ba nu seeti yàlla malaayika yi wax de waxaala ma ngay wax al amlaaku malaayika yi rabbal xalqi yow yàlla mi bind mi ndéefi ayab xaan ndax da nga nar a bàyyi nabi yu ko sa yonent bi maa doodan ñu limaale ko mi ne luy tumi ci jëri mi ndax ñeewante ko yàlla ne leen déedéet la chaq bu leen sikki sàkkani rabbuhu boroomam awnuhu moo koy aar kaafihi moo koy mugal moo koy moo koy moo koy musal fi imam yi ci noon yi mu dellu si maa ko ñu jox ko maam Abdul Mutalib ñaari at lañ def ñom ñaar mamam daal di dem aca loy laaj yaakaar naa sallallahu alayhi wasallam sallam ne ne lii lii dafa macha allah oustaz mohammed bay dafa dafa dajale ñaar ci turandoom ci waxtaan wi rek muy jangalat nu sira yent yàlla mohammed ak tamit jajjat sunu pass pass nga ngir it waxtaan wi boo ko da ngay xam ni kat comme que yàlla dafa yoni yent bi muy sunu modèle kon lépp lu mu teg yonent bi mu muñ kàkk philosophie war nañ ko mën a muñ te sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Moussa Ka naan lu jóg ngi rasulillahi baatin ba saf xorom waaye lii macha allah saf na xorom lool ci suñu xol yi oustaz Mouhamed léegi mu sa turandoo macha allah jeunesse nan la nan la nan la defee jeunesse am nabi jeunesse am maa asa xattu rabbahu mostam boromam xam nga léeg-léeg ñu naan diw daa pare man dama pare ci yonent bi ba ba ma yeewoon sax ci ay nelaw ma wax la sallallahu alayhi wa sallam xam nga mënumaa ay ba mhm. faculté yëpp ma géré ko mhm. waaye bu njool màkk dama cee yem yaa am ful la waaw mënuma bu ma demoon université mënumaa mhm. nekk faculté médecine bëgg nekk faculté droit yooyu yëpp mënuma leen a dajale dëgg la ma géré njool màkk rek la ilaha sa turandoo waaw nabi sama tërandoo xam nga est-ce que xam nga ni ñaari yoon ci àdduna la mës a décidé dem ci fo moom yonent mu xam ne du cëram benn bi day sàmm bi muy sàmm ba ci yàgg am ay tëggu naar xawaare bu mu jàkkaar lool mu ni bu xar yee ñëwee ba ma teg leen fii takk leen damay daw seetaani mhm. avant xar yee ñëw yàlla roof ko nelaw bi muy yeewu fekk ne xolal tëgg maag la fa xewoon ak nit ñi dem nañu ba fàtte daa yeewu ci ay nelaw gisul sax luy nuroog nit mu mel ne dara mosu fee mel ne dara mosu faa xew mhm. bi ci des voyage la jóge commerce mhm. ànd ak Abdou Manaf bàyyi Ali na Abi Talib à l'âge de 12 bi ñu dugg Màkka mu dégg tëgg yi mu ne xaaral ma jaar faak sama giléem bimi tolo tolloo kaaba gi yàlla rof koy nelaw bi muy seen bundu kër la yeewoo mu xam kon lii du cëram moo tax maa asa xattu rabbahu musta mooy boromam dego alifan nuska wal ibadata wal xal wakat tiflan wa hakaza nujaba u ca kayfa tarxaa ruqiyakal anbiya mësta jaar ci lu xale jaar mësta itam am jot wax la huit ans la ñàkk yaay ñàkk baay ñàkk maam ñu jël ko jox ko papay Ali ibn Abi Talib douze ans muy première sortiem bu mu dem bu mu dem Cham defi commerce kon à l'âge de douze ans commencé liggéey à l'âge de douze ans joxe dépense teg ci te booba amu fa baay amul yaay amul mag amul rab douze ans la joxe dépense te dafa ñëw ci Abdou Manaf baayu Aline ñu ko papa man dama gis ni man ak yow bi ñu nekkee ba tey defoo dara benn activité hmm. mun ko Moustapha commerçant laa woon da nga koo bàyyi mun ko wallaay mënta ñàkk ma bakko munu ko munuko samam, munu ko sukurat, hmm. bim tolle ci sukurat hmm. ay domam bari nañu hmm. abdu kab abdou manaaf zubairu talha umayya barata bayda atika Arwah, abu lahab ak man ñun ñepp ngi ci fami bi samam nek ci sukurat ñe nek ay milliardaire abu lahab ñew ni ko denk ma sët sët bi muné ko mën na la ko denk way da nga xamati te bëgguma ko yor ko abu jëxali ni ko baye denk mako ko da nga bari alal te nay te bëgguma ko nay li ñuy bari bari mu tourné xool ma xam na ni damaa njaboot te yoruma lu suukar màdd mu ni ma yow laa doyloo ci sama sët bi yaral ma ko ci ngor te comme amoo fi bàyyi amoo yaay damay bañ a tukki mm-hmm. nga tumuranke sama ginnaaw mm-hmm. mbaa nga rafle ci sama ginnaaw dëkk boo fa amul ndey amoo fa bàyyi boo xiifee sañoo songu nit naan damaa bëgg a lekk te nab bi borom kersa la du siggi mm-hmm. mu ni ko ma ma suivre la moom ma gënal may defi commerce mu ni ko bàyyi dama bëgg nga nga takkaat say jaaj nañu andat man ak yow baye watro fi baye côté Makka dem sham fi xubbihi ci 12 am xaa huit la ba deux muy dix sidda bi deux muy douze fii xubbihi ci 12 am amuhu bayt taxam bay bàyyu alin khadra ha gontuna wala khadra ha na maahu andak yonent bi ila sham ñu jëm sham ci voyage bobu nak ci lañ dajje ak benn labbe labbe bi ni len ki yonent lay doon xadisara abba ilahi rahibun nasturahu wa yaqulu nabiyyun jaa bil umame mu voyagé voyage am boobu ci lay voyage ci lay voyage ci lay voyage ba ni mu amee vingt cinq ans daje xadija xadija joxaat ko voyage ba ni mu see xadija amuloon jot alaaji jot baaxul ci góor kon daawul toog di naan ataaya ak amul woon xarit benn xarit la musa am mooy Aboubacar Sadiq wax naa la ko mhm. mooy fi nu xaritoo ñoom ñaar ca voyage boobu la ñu xamantee mooy douze ans mooy douze ans ya mhm. noonu la ko jàppoo di commerce de commerce ba ni mu amee xanaa xamoo ni saaga boo gis ci internet koy def ñi am jot la seetlul ñi ci bureau yi gisoo leen ñuy tiktok mukk di xasaatee di xuloo ñi ci bureau yi taluñu ko hmm. ñi am liggéey taluñu ko hmm. bamba ñi nga gis seetlul ñi nga gis ñëpp ñuy ñuy ñuy werante hmm. ci facebook bi ah tiijaan laak murit laak ñi ci ëpp amuñu métier ñi te seen bitig lañu yoral seen bopp kenn kon kenn kenn ko nu tudd kenn kenn kenn kenn kenn conditionné wu leen bamba nit bu amee jot rek dugg ci lu ñàkk fayda yonent bi yàlla daf ko teel a xañ jot même doom doo ko yar ci ay duma danga ko yar ci xañ ko jot mhm. jàngi wàcc defi cours de soir mhm. bu wàccee dina tal leneen lu dul fa wi nelaw ah. yonent bi ci la ko yàlla yar moo tax daan na taxaw xool seetu mhm. alaaji suñ tërandoo moo rafet sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu jigéen jigéen dajeeg moom da ngay am kersa doo ko xool nag taar laa ilaha illallah bu naaj bi tàngee boo dee tàppet boo yemee ci moom ndaw ay bëtam la nit àttanul bu naaj bi tàngee day mel ni ku ñu puudar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëtam yamul ak benn bët ni ay bëtam toll boo dee tàppet laa lax da daw bu mu saana muñ koo mënti doon ci yaram bu ngeen dajee ci ruq bu xat mu jàll xajal la boo jàllee mu doog a jàll boo ne ko dañ maa yónni mu sëgg noppam tant que sa gémmiñ du si gi sallallahu alayhi ñu bari dañoo foogoon ni ndeysaan da dégg benn firikat naan la bakken ba ni sulet déedéet mais leer gi daan déparé ci jëbi di ñëw ci bakken bi alaaji Malick nee na bu sa bët gaawee ci ñàkk gis yonent bi da ngay foog ni bakken bee gudd waaye guddul leer gi la min nuuri irniinihi xat zanna nazirahu isa taajjana an xat xaasi min xikami yara bi zalmaa nuurul aalamina kama ala diya in yara saddex wala taxi mi cheikh njol maaka bu courant coupé yow mi toog yaa koy yëg waaye du ko bàyyi xel ndax ni muy leer gisee bëccëg noonu lay gisee lumineuse yi tax yow bu ngeen toogee courant coupé yaa naan ko àllaaji lamp yi fay na waaye du ko yëg parce que lumineuse yi tax yi ci bët yi bët yi leer rek lay gis bu tëddee bët yaay gëm xool bi di xool mësta taxawal mësta caaxaan moo tax bu ma gisee ñi ci tiktok bi jàppal àllaaji Malick gi jàppal sëriñ Touba gi maa la gën sëriñ xanaa am na ñoo xamante ni bokkuñu ci benn tariixa mhm. li leen neex mooy xeex sëriñ si dañuy dugg di commentaire sol solu murit mbaa ñu sol solu tijaan mhm. di commentaire te bokkuñu ci tariixa yi bu ko defee nga foog ni tijaan ngay xulool wala murit ngay xulool fekk yaa ngay xuloo koo xam ne sëriñ si rek la bañ wallaahi dëgg na mais ku bëgg sëriñ si mhm. ki nga bëgg boo ko bëggee rek bëgg ki ci des wallaahi dëgg man Tijaan la mhm. damay dem Touba damay waxtaane Cheikhul Khadim damay waxtaane Baye Niass mhm. damay waxtaane Baye Laay damay mhm. waxtaane keneen xam nga lu des xam nga lu tax may def loolu buuñaa laay wër yow mal xiyam tuyaaba doyu fa déedéet bu la laaj Maalik joxe li mu lay jox nga ne sëñ Bamba dama yelwaan ci sa tuyaaba ji waaw bàyyi laay kaay kii defal ma ci sama bool tuuti bàyyi ñes jàpp ci ñëwal ci sama tuuti njool maaka nag maa ngi ñëw ci yow pareegu ma loolu képp laa bëgg yow mal xiyam sallallahu alayhi bool bi duun ma ànd ak sama njaboot dugg aljana léegi macha allah oustaz Mouhamed Mbaye yaakaar naa ñëpp ci euh, yonent yàlla Mouhamed léegi oustaz gàmmu gàmmu ndax it dañ ni bi def ko loolu mhm. loolu la yenn ci ñiy di ngat gàmmu wax ni kon bidaa la. léegi nga nga nga déggee gànnaaw. bidaa daal koo dégg mu ko ci wax daa soxor rek. sallallahu alayhi wa sallam. alaaji. Hmm. anniversaire. Hmm. kon bidaa la. Hmm. takk sa ay verre. bidaa la. tiim caméra di wax. bidaa la. am téléphone. bidaa la. koor jot. nga ibbi frigo naan. bidaa la. Euh, taal kilim. bidaa la. tali. biddaa la bu fekkoon ni nit ñi dañuy bañ biddaa kon ñëpp dañoo war a wut ay mbaam ak i gëléem yonent mi mbaam la daan war sallallahu alayhi wa sallam mujiba daawati mhm. bu daan wuy ji woote mhm. mamlukan buuri mhm. wa raakiban dafay war alximaara mbaam bu fekkee ni sunna yonent bi ngay roy yow ngay roy sunna yonent bi am troisième étage jàpp tijaan yi muridi xanaa xamoon ne bu doon sikkim bu gudday taxa doon ibaadu kon ba yëpp ay ibaadu lan <laughs> sikkee di waaw parce que ñoom ñëpp am ay sikkim. dëgg la mais iñaan paasetul say magi dëkk bind. am cofeel ci yonent bi way lo xalaat ci téere ñu bind ko nga bàyyi seen ay téere dem di gëm ñoo xamante ne boo demoon seen dëkk tey yow ñu xeeb la ndax sa dér bu ñuul ñooñu siggil la ñoom ndax seen dér bu ñuul. nga ni nga ni gàmm bi daal te ñu ëpp la xam-xam. ragal yàlla gi ci cheikhul xadim ba julli ci géej gi gi ci seydil xaaji malik ba mu fi dem màkkatal mu dakar alexandre siwis jidda yek bato ñëw ni yonent bi yek naa dem mak joxe faratam dem Medinatu munawar muni halli babil ayi wal ayi wal huda mu amin aminin wa huwa rasul bay jaar fi dugg bir Afrique tasaare ko maam bay lay rëddal géej wote ajibu daa yàllaahi mak ñi ken ko ne def nga ni lolep ay bidala yow lo fi def xam wax ma ban karama nga def wax ma benn karaama boo def budé alquran ñi ci daara yi la ko dàq par force budé tafsir mënoo len ci gis nga man damay wax ne duma xass borom xam-xam. parce que al ulama warathatul anbiya mais damay gis ni yenn say nga gis kenn ku ni woy ibadu mu dem yëddu ben tarixa xol lu lu gànna message wax beug cee waxtan waxtaan. fekk gànna itteelu ko de ay vie lay weur parce que vidéo yi dañ koy koy. fay dëgg la bima xame ni ni ay vie lañu weur wër sonnatuma ci. man imaam kenn du ma teree nelaw mhm. yonent bi laa bëgg jeex sallallahu keneen ku bëgg yonent bi ma jàppale ci mais damay wax ne la yonent bi waxoon ni mhm. falaa tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bi man ittaqaa mhm. bu kenn fëgg sa dënn ni ñun ñooru mbiri yàlla rek moo xam ki ko ragal nanu bàyyi di di nga nga xam ne ibaadu la na doy loolu imaam ba yowmal xiyaam ki nga xam ne tijaan na doy loolu imaam ba yowmal xiyaam ki nga xam ne murit la na doy loolu imaam ba yowmal xiyaam yowmal xiyaam alaaji ñëwagul bu ko kenn atte waaw euh, euh, yowmal xiyaam euh, xam nga nu ma ko tuddee nu golo xam boote doomam yàllaa ko wax de nee na kenn du fa jariñ kenn xoolal yoon bi ngay jaar nga jaar fa dëgg la caméra bii Cheikh taalal ñu mhm. xamul tubaab bi ko defar nu mu tudd déedéet te ngi ciy tedd mhm. di ci fayeeku wallaahi tubaab ba boobu sax ba mu ko defaree faatu na yàllaahu wallaahi dëgg la nañu am njort mhm. suñu diggante ak suñu borom man ku ma gis ngay julli suba tisbaar tàkkusaan timis gee jàpp naa ni yaa ma gën bakkar yow mal xiyaam ma xool nu yàlla jëflante ak yow macha allah oustaz yaakaar naa gàmmu gàmmu gàmmu léegi kon gàmmu dagan na fa farata la sax pour man ndax nettali dégg nañu ci seen jàng ngeen yonent bi moo njëkkal gàmmul boppam. yonent bi dafa daan woor. Mhm. bu ma saan a jot. Mhm. saxaaba yi. Mhm. dañ daan daje. mu Zeynatu. mu daan dajale saxaaba yi ñu toog. ñuy def question réponse ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtane mbaxam mais yonent bi buñ ko jàngale wulun est ce que mag ñi dinañu xam sira dede est ce que xam nga ñun suñu ciofel ci yonent bi yonent bi defu ko man sama ciofel ci yonent bi yonent bi defu ko Seydil Hadj Malick moo def wallahi dëgg la parce que moma jàngal yonent bi nit du nam ko ma xamul ma deg balem dina la musa netal histoire boobu parce que dafa gudd te pourtant waji day dox di dem deg ñaar ñuy waxtane yonent bi xamu ko mu top ci déglu ñuy waxtane yonent bi mu top len top len ba ci yàgg muy joy di leen topp ba caag amatul sago di jooy ba caag mu yuuxu gaa yi daw geesu lu xew mu leen dara dama dégg ngeen di waxtaane ku ma xamul mosuma koo gis ma dégg tolérance bi ngeen di wax ci moom ma dégg mbaax ngeen di wax ci moom waa ji dagg yoonam di war yonent bi ay weer jàpp nañ ko jaam di ko jaay di ko jaay di ko jaay ba jaay ko frontière u Màkka moom waa jooju rek pour mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa jooju dem na bay bàyyil sëriñam mm-hmm. tàndarma mm-hmm. di witti tàndarma mm-hmm. am doomu ki ko yilif ñëw ci dëkk bi daw ñëw ni papa ay waay papa waa jaa nga ca koo garabu tàndarma ga papa tey laa gis waa rafet papa waa bu muuñee sa xol day sedd nit ñi dañuy rang di ko nuyu ndax loxo bu nooyu wala xariiru wala dibaaji aliyanu min kafi rasuli tawili zandi la tasimi papa waa ji bu la xoolee sa xol day sedd bët yi per bu ñuul bi day daw nday joor ak càmm ñamul benn place bu ne la wa aleykum salaam mu ni ko num tudd mu ni ko Mouhamed waa ji ca kaw garab ga la départ yi ni dàtt ci suuf xawee ko xawee ko la doon xaar parce que bi xalé bi wax dafa def tek di deglu mais bimu nek mohammed la tud dafa ko ci kaw garam gi daanu rek daw duggu marché medina ni jakal ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gis nga nit leg leg dang koy gis rek bëgg ko oh. sans dara diko xol diko xol diko xol di ko xool barangoo uh-huh. mu ni ñaar ñoo ñu bani wax déggoon na ñu nan waji du lek sarax addiya lay lek mu daw dem seen kër uh-huh. jël ci tandarma gi yonnati bi waxtaan mu ñew ni ko maa ko sarax tok diko xol njool maa jël tandarma ji jox ñom bilal ñu seddo ñu lek parce que xamna ni du lek sarax mu togaat ba ci mu daw dellu ab dir mu daw delu si indi tandarma ni ko mal ko jox hadiya nabi dafa bëggon tandarma mu muñ seex rek mu yuuxu ñu ko yow lay wër japp nañ ma jam fu jaar fa rek moma déssé sama patron mom la nekkal xaarama daw gis ko ñëw patron dama lay ñaan nga gorel ma gis na waji dama bëgg di ko liggéeyal mu ne ko non mu ma mala gorel mu mala jaay mu mala def dara mu daw delu si ni njol ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xol bi yaay borom waaye jëmm ji am na ko ko yëlif bi ne ko demal nga wax ak moom mu wax ñaan njekk mu bañ aboubacar sadiq ni ko jaay ma ko waa ji bañ ba ci àgg waa ji ni ko boo bëggee ma jaay la ko danga may wutal ñetti eh, ñetti téeméeri tàndarma yooyu jëm ba tey mu ñor tey ñu lekk ci tey ñetti kilo wurus moom laa koy jaayee waa jiy jooy ni ko duma bëgg naa ak yow te waa ji ñetti téeméeri tàndarma lay laaj yuñ jëm ba tey mu ñor tey ñu lekk ci tey ak ñetti ak ñetti kilo urus te xam naa ne amuñu ko nabi ni dajale len ma ay xoti tandarma kuko am bilal juk ñi wërantu di wërantu ba am ñetti téeméeri xoxu tandarma njol ma kané aboubacar da ngay top sama ginnaw omar topal sama ginnaw Usman top ci alin de len gas bay len may tari yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci baax ben nga xoxu tandarma bu mu téy xol yëngal yëngal yëngal xol asaman xol suuf ni rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin dor bu 50 yele ñuy gas 50 ñu ngi ñor ma ngay wadd njol màkka ni ko xana li nga waxon mu ni ko ay waxon na la ñetti kilo wurus bu ko amee ma ma ma ma ma libéré ko ñuy wër di wër ba amuñu lu tollook cof na bi di ko indil foo peese waa ji ree nga xam ne loxoom ya barke moo ci amoon bu defee ni loxo mi ndeysaan def nii di ëpp bu tegee mu ëpp kilo ñuy compte di compte ni ko ndax lii la mu ni lii la mu ni bilaal li ci des dellool ma ko borom ne ko ndax manqué na teralee ko waa ji waa ji noonu la toppee njol màkk kooku koo koy tëkkaleel ci àdduna nit bu ko xool mën naa ñàkk julli mun naa ñàkk def lu ne waaye bu soppee yonent bi lépp fekk si waat ko wallaahi dëgg la nabi nee na cheikh hmm. maxtulita xubbi fii qalbi ahadin ilaa wa xaramallahu jasaduhu min an naar yonent bi nee na bépp xol boo ibbi lu toll ni bépp suuf cofeel am ca bu jëm ci man hmm. yaram ba ëmb xol boobu araam na safara sallallahu alayhi wa koo gis ni nitu safara la mel ni yaa moom nit ñi <laughs> waaye lu tax yow koo dajal dooni kii nitu 100 mètres la du ko dajal ni bandi la waaye déedéet koo bokkul yoon rek yaa ko gën yoon déedéet jàppal ni amal njortu bu rafet te bëgg yonent bi hmm. te woote gis nga bamb bokk na ci danger xool nit ni ko góor jigéen nga bokk na ci danger xool nit ni ko faramaçon nga hmm. yàlla nañu bàyyi yàlla ak jaamam yi te nu waaraate te bañ kenn bañ a gaaruwaale kenn hmm. bu ma sañoon ñëpp lu baax la ñuy wax waaraateel gaa bul gaaruwaale kenn neel yàlla nee na góor jigéen ko ci sax safara la jëm waaye bul ni ku ko def nangam neel franc-maçon ku ci sax lo defal yàlla buggul bo dé safara nga jëm waareel bo paré nak après yàlla nak mo walaata yàlla mom moy def lu ko neex ci jaamam ñi waxal li yàlla wax yonent bi neena yàlla neena yonent bi waareel mais momo aljana caabi ji maa ko mom may xol kuma neex te sax yowmal khiyam yow la koy jox wa fil waraa'i alfun min al malaa'ikati ka annahum lu'lu'un maknuun mafaatixul janna bi yeddi abarul abraari atqal atqiyaay xiiratul axyaari sayidu raakiina sayidu saajidina xayru taa'ifina. oustaz oustaz Owen Mbaye macha allah yamul dongo ci waane mais oustaz dafa aay <laughs> wallahi dëgg la spécialiste la en sallallahu en Muhammad loolu lañ ko mën a waxee oustaz spécialiste nga sur turandoo oustaz macha allah xëy na nag mm, ñaar deuxième partie bi dañuy dugg nii xëy na du yàgg ñi ñi lay ñi ñi lay topp bari ñi la sopp bari oustaz fan la jàngee man de may nekk gone nag damaa tëwoon man mosumaa xeex suñu waa kër faral ma ndax xam nañu may tooñ ba léegi ma ko laa jël abaagu TFM ñoo yarandoo ñoo defandoo lépp yàgg aba waaw waaw suñu yaayam ak sama yaay ñu doon ànd ba léegi nii may wax ni suñu kër yi benn mbedd jëlloo mën naa la benn vidéo boo xam ni waa ji waxoo xule buy nu mu tuddati Mamran Mamran a ko def mais maa ngi gis bind ci Euh, xaw ma nu mu ko waxatee ci français j'ai fier de toit euh, nii la nii la mu samel daa yàgg am fit yàgg bari histoire dama daan xeex imam kenn mësuma faral dama daan xeex sam papa nekk nekk nekk nekk nitu yàlla man moo tax man mbaax rek moo ma war sama baay judd naa ba toll nii ma toll maay caatam yal na yàlla guddal fanam musuma ko dégg mu saaga yàlla seede na ko musuma ko dégg mu xas gor musuma ko dégg mu wax lu ñaaw ba fii may wax ak yow ba nii may wax ak yow doom musulaate xeex kër goo gis nag day am sarax maa nekkoon saraxu kër ga maa daan zéro maa daan yenu xeex ya maa daan xaaraani lu ne maa ko daan def sam papa xëy rek ni nañ ma yóbbu ma dem Tiwaawan ndeysaan jàngi to Tiwaawan Cheikh euh, toog naa fa toog boo xam ni xàmmeetuma sunu waa kër hmm? waaw xàmmeetuma leen xàmme xaw ma sama mag yi fàtte seen ay tur sama yaay xamatuma ko mère Fatou rek ba ma doon jàngal ak Panjambe laa xamoon ndax seen kër laa nekkoon ak ay doomam maa ngi fàttaliku benn loolu xale du fàtte may jaay ndox Tiwaawan bu boobu ziar général mu Musaana jot wala gàmm mm-hmm. may jaay ndox nii ba jaay sama mag sama taawu yaay mu ngi toog ci benn 19 place mu ne ma xam nga ma ma ne ko déedéet xaw ma boobu xam na ñoo bokk ndey baay mooy sama taawu yaay mu xam ma may caat mag du réere rek mm-hmm. mu ma xam nga ma ma ne ko déedéet mu ne ma sa mag laa boobu ngay dégg ndakaaru ndakaaru day rëy ci yow gis nga Abba moo bindoon lii uh-huh. c'est mon ami d'enfance ndeysaan fier de lui mm-hmm, mm-hmm. Euh, te noonu la neexee te même am fit xaaral ma noppi sax parce que ni muy def nii mën naa ko léegi ba eh, fu ma toog nit ñi du ñëpp wala nga fekk ma sama tànt parce que du jël nit ñi ñu yàq seen ay nelaw waroon a xëy liggéey yi toog ci tànt ngay wax lu tàngal seen xol dinaa leen wax njool màkk dinaa leen reetaan loo sallallahu alayhi wa sallam sëñ si Jamil sama sëriñ mhm. bu taxawee ci tànt li ma gën a neex ma fexe ko reetaan loo jàngi daara xam nga daara jul ko yàq mhm. sama yaay moo jógee dakaar ñëw mhm. Tiwaawoon ngénte jaar fi ma nekk sama yaay comme ni ma amee taxawaay la amee taxawaay macha allah ndomba baat sama yaay nekk jigéen ju yaru nag bi ma ñëwee Cheikh ñun ma kii mooy sa yaay booba yaa ngi rêvé dégg Dakar xamu fu dakaar féete ma mu uuf ma téeméer boobu la jamono da nga daan yelwaan suba ba ngoon ay ay cent franc lañ la daan laaj sama yaay jox ma téeméer ma ni kii mooy sama yaay kii sañse te boobu yow da ngay so def tànku neen ma ma ni leen demee ñibbi wax jëm koo jëm suuf ma leen pare naa fi dakaar rek ñibbi sama yaay ñu naxtaan ma naxtaan ma ma dem nëbbatu ci oto bi ñu ndaxtaan ma ba wàcce ma naxtaan ma ba ñu doon ma ci kër gi booba toolu ñaam bi laa am mm-hmm. ma dem ci àll ba ñaam bi ma mës jëmbat wekki naa ko guddi googu. <laughs> sama yaay ñu commencé wax mohammed mu ngi fi di doko ne neena day ñibbi dama ragaluma dara damay ñibbi damay ñibbi ndeysaan ma ñibbi si bi ma euh, ñu yóbbu ci oustaz Ndoy koku motax ma am charisme kaddu pardonné wu ma benn yoon ci ci ci huruf hijaaiya yi waaw ma xarijal huruf hmm. pardonné wu ma ci bu waré xola Sha, mani sa mu tejj ma ci margo bi margo la may tejj yenn saa yi mu tëj ma ci mbaaru xar yi parce que dañ ko teel a déclaré ni ko li olof naan foo dem am fa jàmm sa soppee fajaar uh-huh. foo dem am fa am fay noonu sa noon a fa ñu teel koo njëkkantu ci man ma egsi ma yu ma jàmm ndomba la amoon deru golo li ma la goor gaa ngi dund yàlla na yàlla guddal fanam xoola xam nga deru golo moom la ëwoon moom la daan takk nii du ma pardonné moo def ci man ma am facilité mokkal joojo la jamono uh-huh. parce que dama ko ragale woon xel uh-huh. ci di rey sama bopp di rey sama bopp sama papa li tax mu génne ma fa. Mhm. dafa am ku mës a rey magam. Mhm. benn mandikat bu rey magam. Mhm. bi ci guddi gi ñu indi ko ci margo bi. bi ma mokkalu ci suba gi ñu dugal ma fa. bi ñoom sama ñoom papa di ñëw di sang si. sama papa ibbi gis ma ci margo bi loolu daf ko metti oh. sama papa ni ma da ngay dem jàngi arab bàyyi alxuraan bi rek. ci laa nekkee ci nduur fa laa amee certificat. falaa génnee mais du tee nag dama doon dem vacances ci waawoon di jàngi. Oustaz Diène Oustaz Ngiraan Lamine macha allah di jàng yenn saa Iran daw. Mhm. daanaa raw mu ni daaraam mosuma fa dugg na. Mhm, daara Iran. waaw dafa mhm. siiwoon. mu nekk jàmbaar. Euh, jàmbaar la ndeysaan. dama daan romb daaraam nii. xool ko muy jàngale. ku ma waxoon ni dinañ dem sax ba ba bokk benn liggéeyukaay dama yéem yenn saa dama ko daan romb ni ak ah, kii moom day ñëf day fas kanam gi rek ak nangam yooyu natu yërëm la rek. may dem dem dem ba tey yàlla def mu nekk sama baay nag nekk sama xarit lool sax nekk sama xarit. nekk sama confident lool te yàlla rek loolu mo dugal ci firi mo dugal ci jàng. ma sha allah ñëpp xamé la kër Seydi Jamil Fass ce lan la lan lan moo la bolé ak ñom ñaan ñaan ñaan Cheikh. ñaan mo mo dugal Fass. seigne Mansour si jamil neena Omar ibn khattab lako ko dugal ci l'islam ñaan yonent bi mo ñaan allahumma ayyidil islam bi ahadi umarayn l'islam biñu nekké 39 mu metti amuñu pouvoir amuñu doole. Hmm. yonent bi dafa ne yàlla maa ngi lay ñaan ñaari Omar yële di mandi dugalal kenn ci l'islam yàlla dugal Omar ibnu Xataab. Hmm. wa bi sababi daawati nabi. Hmm. ci barke ñaanu yonent bi aslama ci la tuubee alfaaruq Omar ibnu Xataab. sëñ Mansour nee na daf maa gis Malika. boobu laa gën a nekk ndaw dooj may firi ci tànt sëñ Mansour ñëw ci. di ma xool di ma xool ba ci yàgg mu ni sama baay boobu ndeysaan papa Kaasa yàlla na yàlla yokki leeram ni ko kii la. mu ni ko sama daayira la bokk ci xale yi. mu ni ko kii de ëllëg bëgg naa bokk ci xale yi bëgg naa mu bokk ci xale yi nga xamante ni sama mission dañ koy doxal. Serigne Mansour Sy Djamil Djamil bu ma vidéo bi réerul woon dinaa ko seet wan la ko. Uh-huh. sëñ Mansour nee na jaral na ko mu dem ba Jidda. Uh-huh. dem ba Kaaba ga di ñaan yàlla yàlla naa bokk ci njabootam. Oh. <laughs> sëñ Mansour Sy Djamil uh-huh. di ñaan yàlla Mouhamed ba yàlla na bokk ci sama njaboot. loolu moo ma indi Fass. ba tey ji may wax may doxal programme yi li tax ma bëgg ko. sëñ Mansour dafay def ba bashiran wa naziran boo doo ko ne day attaqué sa kaw ba jeex tàkk ba nga foog ni yow rek la bañ ci àdduna mais boo defee luy yoon dalay lay bégal ba nga foog ni benn taalibe la am muy yow ñaareel bi xamul waxu biir ak waxu señ sëñ Mansour du tricher ku mu bëgg a dal ci àdduna da lay dal boo doon yéeg asamaani juróom-ñaar daf lay wàcc wax la lim leex tu balaa la nga naaw <laughs> lim gën a aaye nag événement xew lu mel ni bëre wala football uh-huh. mu war a am 5 heures jëm 6 heures samedi ak dimanche takkusaan am wala gàmm wala conférence da koy def exprès 5 heures boo moytul da koy fekk ci tànt ba moo tax damaa xam jikkoom xam jikkoom ba bu bari amee mhm. mu leer ne ma tàkkusaan bu nu war a dajale 5 heures daf may fekk ca koñ ba waaw parce que dama daf maa rus lool dama kaa rus lool ba fii may wax ak yow sëñ Mansour bu ma waxee moom siggi rek damaa téye micro à part loolu mën na wax ba daaneel suñu bët du daje waaw mu nekk bàyyi nekk bàyyi nekk bàyyi bu baax mhm. nekk xarit nekk ku ñeewante mhm. gaaw a gaaw a gaaw a génne rangoñ hmm? même bu xamul nit mu gis mu ne ci souffrance da gis rangoñam tuuru sëñ Mansour noonu la mel ba pare tabe mën a maye alal hmm. sëñ Mansour li ma jox ci ay dollar kenn xamul lu mu toll ay dollar mos naa banque Cheikh hmm. maa mos a banque banque banque banque ba fa banque yam kon xam nga ni banque naa <laughs> sëñ Mansour am programme parcelle uh-huh. boobu waruma koon firi waaye hmm. damaa ñëw ci programme bi rek toog parce que du may firi faas hmm. am na ñu ma fi jiitu hmm. ma toog ba càgg sëñ Mansour di waxtaan xoola maam Abdou way na ko ñaari way ñetti way sëñ Mansour borom daara ji way na ko maam Abdou Aziz maam Abdou Aziz da baax way na barin wa udin ata bihi xuluxin mahmoud way wu neex way na ko bi bàyyam sëñ Moussa Fass Jamil génne àdduna way na ko way na ko bi mu ko indilee ay parfum yu jar ay millions borom daara ji 2006 la ko mujjee way sëñ Mansour way ko ba wax ko trajet bi muy jaar xam nga maître sëy ni ko fi defoon rey ko mhm. bi biñ ko waree def sëñ Mansour si Jamil borom daara ji moo tëdd guddi sëñ Babacar feeñu ko ni ko wool man Mansour fu mu mën a nekk ne ko gaañaa ngi koy jugal niñ def maître sëy lañ ko bëgg a def waaye wax leen ni leen maa moom sëñ Babacar taxaw na ci kanamam balaa kenn ñëw ci moom lay dal borom daara ji woolu ko wax ko loolu tekki ndomb bi mu takkoon ñu ko sa baay xam nga Seydi Jamil bàyyi sëñ Mansour mooy mooy taawu sëñ Babacar ñu mhm. ko ndomb bi sa baay moom ma ko joxoon ba ma daan amee biir buy metti am takkal ndomb bi téere loxo bi ci yàlla foofu laa jaar ak moom loolu moo ma dugal faas mhm. eh, damay tiitaru yenn saa yi dama naan leen man ñaan laa <laughs> ñaan gu nangu waaw man ñaan gu nangu laa moo tax bu may war a jàkkaarloo moom di firi damay sañ sa ba rafet damay sol cheikh loo xamante ni duma ko amee ca tànt ba oh. pour nek sa fierté pour ma pour wa pour ma pour ma xamni ñaan la bu may dem ci centre jésner lu mu gatt gatt gatt dina ci def lu romb 100000 ñew lu mu gatt gatt gatt dina ci def lu upp 50000 marakis ak ak mbaxane légui la tané xolal damay duróole damay damay lajël ñima min te dima sétane seetaan xam nañ ko yéré bu ma mëna am dina dem sama tëgg bi mu wutal ma jaaro bu mel non dina fi xeba am montre bu mel non gis nga lima solé solee vert dama koy bolé li pour rek taxaw ci kanamu seigne Mansour ci Jamil won ni ko sa ñaan la ndeysaan té ba légui ni mhm. amul sago ci man ma nit aw ma sago ci moom mm-hmm. moom nag moo ma jàngal personalité ba musuma fëgg bureau maa la koy waatal ci cofeelu yonent bi musuma fëgg bureau nit wax ko soxla sama soxla xam nga ñu koy xam ñi ci ëpp ñi ma bokk sëñ Mansour si Jamil ku mel ni Mbaye mm-hmm. nga xam ni moom fu ma banquee dem seeti ko ndax du ma am chaque jour ñu ko a alaaji boo gisee ma toog ni yaru <laughs> reetaan yi wàññeeku rek xamal ni <laughs> damaa ndóol <laughs> mu may ma teraanga sëñ Mansour jour boobu ay dollar la ma jox daf maa may dollar may ma dollar ba. Mm-hmm. ma ni waaw ma ma ñëw nag suñu kër looloo neex booba xaw ma dollar. ma ni sama mag bu góor ñoo bokk bàyyi. Tafa euh, sëñ Mansour daf maa may xaalis tey mu ni ma ma xool ma wan kooku mu ma mu xaalis yi daa daa jar a wecceeku bëgg maa jox ay 10 000 10 000 man ko noonu bàyyil ma dem laaj bitigu naar bi <laughs> parce que dama yàgg dama yàgg dëgër bopp uh-huh. ma dem bitigu naar bi naar bi di ma ko wecc di ma wecc di ma wecc bi ma ñëwee moom mi ma dox naa ma xaalis bu baaxul la uh-huh. avance naa ko ci pour mu defaral ma coin yi am télé yi <laughs> foofu laa xaalis bu baaxul bi mu boole maag nag sëñ Ahmada xam nga sëñ Ahmada uh-huh. moom laa tuddee xoolal lu yàlla def sëñ Mansour mooy sama sëriñ uh-huh. rakkam laa tuddee sama taaw sëñ Ahmada fu mu jëm ñooy ànd mu yàq ma lool teel ma may tablette lool te ca ba muy jafe di ma bàyyi xel P2 xamoon nga ko uh-huh. ni p P2 p pencam 4 ma am P2 nga xam ne bu balaa nga koy taal mën nga koo taal muy télécharger nga dem Dakar jaar fa dem koloban, dem tilen jaari jam ñaajo ñewat ci kër gi mu lay wax tak na. PlayStation 2. kay PlayStation 2 bob non Windows mo def ay Windows 1 Windows 2 Cheikh yoyu ma am ko sahko Sakho señ bi daf ma daan 2 h du matin ni ma loy def señ Ahmada ma ko dama don nelaw mun ma yewul nga def nangam ci sa kurus ma tek ibu Sakho di ko ko yor sama kurus defal nangam defal nangam defal nangam nonu ma tamal la ba barki dem rek mo ci mujj. tur nangam na nga koy liggéey ma ne ko incha allah bu ma jëndee oto li may gën a neex balaa kenn di ko gis moom ma ne ko sëñ bi jënd naa oto pour say service bañ a tardé bu ma jógee ci moom daw seet sama papa ak sama yaay. ni leen nañ ci dugg bu ma ko jógee ni sama soxna oto baa ngi noonu. ci sa barke la soxna si am na jigéen ñoo xam ne ku leen takk dellu gi ginnaaw am ñoo xam ne ku leen takk yàlla suturaal la man ko soxna si ci sa barke la. Mouhamed Mbaye ñëpp xam ko macha allah ci kuy tiitaroo soxnaam. yii ah, mbaa yëg nga ni sama soxla yéen a bokk yéen yéen bokk yoon uh-huh. taalibi sëñ Abdou Xaadir la di ba fii mu toll ca laa ko bàyyi def naa Touba set jours uh-huh. def Jurbel 2 jours parce que samay goro Jurbel lañ nekk famille bi mu ñu nekk ñu yàlla baaxal uh-huh. ñi ci ëpp ci famille bi nekk ay Baay Faal waaye du tee dañuy julli dañuy def lépp xam nga bete bete fa mu bokk daf koy fiire mm-hmm. ñoom ay bete bete murit lañ man ma nekk bete bete tiijaan mais ñu xajoo ma lool ngir bëgg bi ma seen mbokk bëgg ma xajoo leen ngir liñ ma bëgg bu may waxtaan ci télé sax damay sédd ni sama ay goro ñu may seetaan parce yonent bi nee nit day fonk goroom mm-hmm. sama soxna itam jàpp ci sama mission mm-hmm. parce gis nga ndaanaan rafle jigu ko kuy génn lu bari te lii may sol moom lay jaay damay ñëw am na ñëw yoo xam ne yàlla xam gi moo ko ñëw solaguma ko bis di damay ñëw kër ga rapide pour génnaat dem RDV dañ ma invité. Hmm. sama soxna laax de. Hmm. mu jox ma xaalis ni ma xam naa taloo réer boo rombee jëndal lekk. te xam na ne yor naa xaalis yàlla sedd na ko ak yonent bi. yàlla boole ma ak moom nag mu nekk hmm. sama xarit lool. nekk sama complice lool lool madame Mbaye. waaye tout le temps da ngay ma may wax madame Mbaye madame Mbaye alaaji. ku ñeewul sa aawo du la may ñaareel. wallaahi dëgg ku bàyyiwul koo gis nag may ko jabar bu sa jabar bu sa bu sa sëddi yalwaani la bett. koo dajal rek may ko soxna mhm. bu sa sët di yalwaani bu mu la bett mhm. koy may sa doom na ko tànn mhm. ki jël doomam may la na ko gën a gore wax naa la léegi ne la bari na góor ñu tëju foog ni dañ leen a liggéey fekk liggéeyuñu leen seen xoolu soxna lañuy tàngal looloo leen topp loolu madame Mbaye sama xarit la macha allah léegi relation bi nga am ak murid ñu daanelee foofu ndax du murid yi kese gis naa ni même ba ci ñaseen yi laayeen yi te ñëpp xam la nga bokk kër di Jamil fas loo xam ni kenn du ko werante nga saa su ne boo toogee di ci tëroo waa fas waaye ñëpp xam la macha allah relation bu neex bu jaar yoon ba soo wootee sax xëy na murid yi dañ cay fees dell loolu loolu loolu lan la déggoo li ma la wax sànq. man sama maam bi jur sama baay njëkk a tuddee Serigne Touba doom ci kaw suuf. bi mu koy tuddee doom sëñ sëñ Cheikhul Xadim du mag tu tànk la ci ci ci zahir sama maam bi jur bi jur sama baay maam Mor Fadiagne Dagga mm-hmm. ak maam maalik mbay mm-hmm. maam Mor Serigne Touba lañ ko tuddee mm-hmm. maam Malick Seydil Hadji Malick maam Malick moo jur maam Alioune sama baay man ñëw ma ba télé doog a jàng ay xasiday murit kon kon du ma ko mokkal li ma ko mokkalee dëgg la ak saa dafa naqaree jàkkaarloo parce que àllay waaye dëgg la mais bayit bu mu wax même bu leeru ci ñu koy dégg man fekk xel ma daw na sama xel daw na parce que Sénégal laa dëkk. Mhm. kuy dund day def jëfi ñuy dund. Mhm. réew mi ay tarixaa fi ne. Mhm. boo leen fi bàyyee far fa nga far rek aayoo. Ah dëgg la xam nga lu tax. koñ bii ngay dëkk. beneen équipe soxla la équipe nawetaan nga dem football fa. Eh, mercenaire. waaw te bu football ñi ñibbi si jotee nga ñibbisi si eh. gis nga. yàlla seede nañ ko am cofee laa ci Seexul Xadim. sama soxna taxul daf ma cee fekk. ku am cofee laa ci Mame Baye Niass. damay xool photo ni Mame Baye dafa rafet. dëgg moom dafa jekk. di wax loolu. am cofee laa Euh, ci ñoom ñoom laa jànge mm-hmm. ci ñoom laa amee befem mm-hmm. moo tax yàlla daf ma teel a suturaal seen ay way seen yoon yëpp dama ko xaw dama ko maîtriser li ci ëpp bokk mm-hmm. euh, xaadir yi pare noonu man maa ngi nii sama oto 24 heures sur 24 Mouhamed Niang laay déglu te taalibi Cheikh laa tiijaan laa mënoon naa déglu ay xasida mm-hmm. mënoon naa déglu ay ay ay waaw mënoon déglu wala dudu kenn wala ma déglu ay ay ay ay isbu tarxiya mm-hmm. mais yàlla ci ci ci ci ci Mouhamed naa la ma xiir wallaahi dëgg la loolu kuy dugg sama oto xam nga ko awma ci complexe parce que gis nga mbëggeel du lu ñuy programme bi ngay takk sa soxna mm-hmm. ñàkkul ci koñ ba ku ko gën a rafet ñàkkul ku gën a rafet waaye moom la la yàlla cërale dëgg la man foo ma fekk Mouhamed ñaa laay déglu bu ma gisee ku ko attaqué ci internet sax ma attaqué la <laughs> parce que ku yaru la nit ku ràññee la nit ku am gëm-gëm la mm-hmm. man munuma déglu ci àdduna ku dul Mouhamed Niang bu ma la taalaloon sama oto léegi Mouhamed Niang ngay déglu moom nga mujj sélectionné mm-hmm. moom laay déglu ñi si des ñëpp samay soppe lañu mm-hmm. Tawfekh Mbaye dama koy déglu bi mu jëwee Cheikh Béthio mu neex mais Mouhamed Niang mooy sama mooy sama hymne national bu may dem longue voyage même bu ma gémmantoo dama koy taal yokk ko vidéo yi may def yu ëpp di ko defal nit yàlla xam na ni son Mouhamed Niang mooy te fu muy dem nag ni ma kañ dem. ba ñoo mujjee dem jaale ji Balla gay man moom ak soppe bi Zé théâtre mhm. ñoo dem. Mhm. Touba bu ma fa duggee day woon ni ma kañ ànd ci ay kilifa. bari na kilifa gu ma xam Mouhamed Niang ma ko présenté. Mhm. loolu mbaax la. loolu am ak murid yi. tijaan yi. laayeen yi ñëpp loolu laa ak ñoom. mais yonent bi kenn du sama xol. sallallahu alayhi wa sallam. Bamba damay toog xalaat dara ci moom ba jooy. ndeysaan man kaase. sànq bi may sangu suba rek dal na ma. ndeysaan man yàlla. samay wayjur jàmbaar lañ ndax ñoo ma jàngaloo diine mhm. waaye mënumaa fay Seydil xaaju Malick bi def cofeel yonent bi ci man mhm. yenn saa yi ma xalaat maam Cheikh Omar Fouti yu jooy mhm. daf may dal ci moom yenn saa yi Seydil Hadji Malick ma dem ba du ma am sago ci bëgg a waxtaane yonent bi lu ko lu ko dugal seen TV Oustaz Mouhamed Mbaye sob <laughs> seen TV di alaaju soboo ma fi dugal pour wax la ci seen TV nag laa xamee ni Cheikh nit warta toog yàlla bëgg naa jox ki taxaw bëgg naa jox ki tëdd ki taxawal xamul nu mu koy def xam nga lu ma dugal seen TV. Mhm. wax la ko tey mhm. xale jigéen yi yor oto musaan jàngale cours particulier Dakar <laughs> uh-huh. damay dox bu may dox gis ay xale jigéen di yor ay oto ma ni waa ñii lu tax ñuy am oto yenn saa yi may romb ay góor ñuy am ma ni mais ñii lu tax ñuy am oto mu jaaxal ma may dox man waaye yàlla ñun ñu jàng arab est-ce que ñun dinañ am retrouvailles ci ci ci teraanga àdduna yi mhm. noonu may jàngale benn kër Mame malik mook sëñ Mansour Sy Djamil ñoo bokk ndey ak baay mu ne Mouhamed pourquoi que liggéeyoo télé parce que du wax ñëpp ñoo ko mën ma ne ko sëñ bi ah ban télé mu wax ma télé yoo xam ne bëgguma leen tudd waaye télé yoo sax doxatun fii lañ ñëwoon ci réew mi bu doon tey njëkkante ay pétin lanu boo leen mayul loxo du dem bu ma waxee benn rek ak sama neex man ko sëñ bi télé boobu moom doxul mu ne ma mais dinaa la booleeg sama benn jarbaat bu nekk TFM waa RTS yi ñu am benn conférence bu ñu doon def ci koor gi cercle mess des officiers fii ci Colobane mhm. ma dem yoral leen micro bi mhm. ñu apprécier ko invité ma RTS waaye man leen ah man daal dama bëgg yeneen télé yi may taamu sama xel ne seen TV moo ko ma Malick mhm. ma bind demande bi am ku ma ko jox ah tout le temps dama fay jaar bu may jàngale ji mu ne ma joxe naa ko mais nee nañ Iran Ndaw mu ngi fi mais mu mel ni dañu ma tourneel ma tourné gis baafulam demande bi sama tur naka te jàllale ko ma ibbi demande bi gis ko mu naqari ma ma bindaat demande dem benn daayira di fa waxtaan daje fa ak magu Malick càndum bu jigéen bu mu bokkal ndey bàyyi mère Aïda Thiandoum mm-hmm. maternité la yor dafay defar ay jigéen mm-hmm. mu daal di ma ay waay daayira bi këram la woon mu mm-hmm. pare ni ma dinaa la présenter sama rak Malick càndum la tudd gis nga sama cofee ci alxaaji Malick xoolal nakate Malick moo may dugal ci média <laughs> Malick Thiandoum moo ma dugal Sen TV booba Sen TV bële la boole ma ak ku baax ki ne woon ci kër gi lépp nekkoon directeur kër gi Pape Diène. Mhm. daan nga dégg Pape Diène. mu ñëw. ñuy def ay ama fekk fa yeneen nit yu bëggoon ay ay ay ay yeneen tarixa mhm. kenn rek lañ mën a jël ñu nekk ci ñu ñëpp di nab nabi boobu temps yi daan yor euh, tablette bi ma sëñ bi jox bu ma nee asalaamaaleykum bii rafetul ne maa ngi leen di nuyu bii rafetul noonu noonu noonu ñu boole ak père laam par àjjuma waaw may doxal ak père mhm. waaye mag bu la jiitoo ci dara di doxal da ngay raam ba ci yàgg ñu quitté ma ma hmm. Il ak y a un jour def télé deux ans yu nit xamul. Cheikh Sarr. Hmm. daf ma defal yu bari gis nga Cheikh. Cher? Hmm. ñor <laughs> Cheikh hein. ah. ngi dégg Cheikh. may ram ci télé bi. parce que lima bëgg. banane la. est-ce que do 2019 2018 2019 kon oustaz 2019 la dugg ci Sen TV. Sen TV waaw. macha allah yàgguma ci média de. alaaji uh-huh. gis nga nit buy wax ragal média bi rek day fitnaal boppam. Uh-huh. man dama jàpp ne lu gor di am ci àdduna. Uh-huh. te doomu aadama yàlla ci am ko dama koy am lu ma teg sama bët la. waaw ma jaaree ko nag ci siraatal mustaqim damay ñaan yàlla am kër yi dàq ci kër yi. di ko kilim ba mu sedd. parce que bi ma gisee ay xar yu cher ñu leen di wutal di leen décoreel fa ñu ne xar ndax cher bu mu cher xar bu jar 3 millions 4 millions nga wutal ko kër spécial décoreel ko ko wutal ko ay jeux de lumière ma ci jàngat ma ne man lu gor di am ci àdduna pare naa pour am ko te te te te yàlla rek may ma ko yonent bi wallaahi la gis nga li tax du ma ko jëndee kenn ci àdduna Cheikh Sarr mhm. bu yàlla waxoon ni ma yow ak Cheikh yéen war a bokk benn jour bu ngeen dee barke alxuraanul karim mhm. ma ne rey ma 8 heures Cheikh midi ndax cofeel bu ma am ci moom euh, plateau koor war a am plateau koor yi daan na am ma ci mënaan leen wax jël leen ma ma attaayal leen pour rek bëgg a feeñ du am mais mbaaxu cheikh benn jour réunion am ñu war a def grand palaato yi mu ni buggaan mais mu Mouhamed Mbaye pourquoi que du ngeen koo ci réunion yi te boobu minante wuñ euh, ñu woo ma ma ñëw ñu ne ma koor gi noo xalaatee euh, mu dina dox ak yooyu man leen ah mbaam nag doo ko dénk sa xarit da nga koy dénk xaritam. Mm-hmm. da may bàyyi ma def li ma mën bu baaxul après ngeen di leneen bi ma fi ñëwee ba tey mosuma ko def. Bougane ni Mouhamed bay kon lundi day ñëw yaa sey daa ñëw mardi. Mm-hmm. Mouhamed bay ñëw mercredi yaa sey daa ñëw jeudi. Mm-hmm. man leen amul problème. Cheikh ma woo ko man ko Cheikh man de nee nañ ma naa ñëw mun ma waaw bari na tey kuy feeñ télé. foog ni sa jàmbaar la fekk seex Saara la placé taxaw ci ginnaaw. taxaw naa ba tàyyi Bougane woo dama japp koku tok di bakku fogg ni dafa xew fekk xewul cheikh ko xewal <laughs> est ce yaangi deg cheikh uh-huh. sar ma woo uh-huh. munuma len rek la lay ñaan uh-huh. na nga solo am jëm ba kooru ren cheikh lu may sol sama kër man ak sama soxna dañ koy wo man ko saway tay am na ku ma ñëwal bolok munuma alaaji bu ko sol solal ñetti abdou nak moy solo cheikh premier jour munuma oustad solal ñetti abdou ñaaral bi li nga mën hmm. bul ci tricher melal ni ku tok sa diko def premier jour dañu ma almet rek ma mel ni fiis <laughs> yi rek ñëw yonent bi parce que moom laa gëm moom laa dund xoolal waa rési rési mhm. di xar Mouhamed Mbaye Mouhamed Mbaye Bougane ni Mouhamed Mbaye na ñëw chaque jour loolu moo waral intégration wu biir grand plateau biir grand ba tey jii ma am ci benn cër dëgg la Cheikh mënoon na yem ak man foofu mhm. ku mu xam ku baax danaan ma boole naa la diw xam naa dina la woo imaginez ba ci doomam taawam bu jigéen man ak moom ñoo bokk benn jour anniversaire 24 juillet seex ni ma yow laa ko bàyyile ndeysaan sama anniversaire bii passé le 24 juillet dafa ne ma alaaji dama la soxla man ko hélas dama génn mun ma jàppale ma rek nga ñëw fi dama la soxla benn affaire nga ànd ak madame Mbaye nakati daf ma jëndal ay gâteau orné ci sama tur defar ko pour ma feetee si sama anniversaire këram ndeysaan ndeysaan ma ñëw cheikh génne gâteau yi soxnaam ku mu am ni la Mouhamed Mbaye sama xarit la ndeysaan léeg-léeg ma ci rajo bi nit ni oustaz numuy def ci musique bi fekk du musique bee ma taxaju de xam nga Cheikh luma taxaju amna ko xamne du déglu waaraate xola ñaari chrétien toubal na len grâce à ma dugg ci ñom Cheikh sar parce que bo baye xel saa yu dama len fekk ñu musique mais buma ma dañuy tëj musique bi deug la ma duggal sama message toubal na ci ñaar fas la len toubalé keur Seydi Jamil kenn ki sama jouru programme la bëggon tuub góor la man ko dama xat parce que damay ñëw fekk ñuy musique hmm. kuy lab hmm. boo ko bëggee dimbali yow lébu hmm. dooni ko jàppandu ndax géej gi amul bànqaas da koy fekki dëgg la xale yi dama leen di fekki seex wàññi musique bi ma dugal sama mission foofu daw génnaat loolu moo tax may dem ci ñoom seex ci teraanga yooyu yëpp mu ma koy defal lu mu nekk wax ma ko alima noonu li ñuy déggante man ak seex du ma ko déggante ak mbindéef moo tax ñu naan ami d'enfance ma leen am na de waaye koo bokkal jikko moo ko gën a neex te ñoom daf mel ni boo leen di déglu suñu borom da leen féetale musique waaye ay nitu ñu bëgg diine lan billaahi wallaahi boo duggee ci oto Cheikh Sarr billaahi wallaahi bu ngeen doon dem ba Gàmbi alxuraan rek lay teg bu ñu toogee ci otoom danaan ma alaaji man maa musique ba pare wàcc am kersa mais est-ce maa ko doon wax <laughs> yàlla mooy sama seede ak dëgg la da ngay toog mun la damay musique alaaji uh-huh. moo tax gis nga yowmal xiyaam uh-huh. nit di nga ko romb ci àdduna xeeb ko yow borom kurus gi mu romb la naan la alaaji looy def fii xam nga sëriñ bi uh-huh. lu neex la nag sëriñ bi dafa am mu ñëw di ko tàggu pour tukki beneen taalibe bi ni ko kii de ruuxam mu ngi may xeeñ tàggu na ma ni du yàgg ci kaw suuf sëñ bi ni ko yow yaa yow yow yow yow yaa ñëmé yàlla yow ngay sama talibé toog sama wet. Eh, xeeñ mo mu lay yow waaw. taalibe bi noppi taalibe bi tukki ñaari fan ñetti fan mu def crise ñu ko indi Sénégal mu dé te waxoon na ko même mm, dans 3 jours. Mhm. taalibe bi de wax ko señ bi ni ko sa taalibe bé mhm. dans 3 jours 4 jours lay dé señ bi di ko waye bi serigne bi yegene kay deena da wo talib bi niko kay kaay ma sama rugi fum fu mu toll xoola lool xam nga tay ko xam tane ya ko yilif dem ba seug nan ko xool ma sama rugi fum fu mu toll cest dire que yàlla amna kumuy may kenen wallahi deug la te te te te nonu la xame jaamu yàlla ndeysaan cheikh nonu la xame lumay wax dina ko sama bàmmeel nonu la xame jaamu yàlla non gis nga yalla lele ngay xol nit con sek del xool ay wayam mhm. wallahi seeda yàlla doo ko gis mukk mu fecc te day way rek mhm. see xolal ku ñëw ci musique bee sax nga romb ko mhm. mais doo ko gis mukk mu doye di waaw mu doye fi mu taxaw ba tey fa taxaw doo ko gis mukk mu def lu ñàkk personnalité benn jour nit daf ñu woo ni ñu dama leen yóbbu Europe mun ma communication bi ma waa ji jox doyuma na tey ci moom te effectivement noonu la demee am ñu ma woo di ma gélo théâtre ci koor gi yónnee ma ni théâtre bi demee mhm. li ma ci war a wax mhm. wax ma ñaata lañ may fay mhm. ma ñëw jox ko ko mu ne ma alaaji lii du sa cër dafa am fa la nit ñi canaliser ba pare te boo duggee ci sens bi mën nañ la ci xeeb te li nga am ci yonent bi moo ëpp loolu delloo leen ko oh. loolu ndeysaan tuutiwul tuutiwul moo tax gisuma ku gën a fees sama bët ka moom ndeysaan bu dee doon am rek ñu bokk benn jour dama naan yàlla naa dee ci suba gi moom mu dee ci ngoon gi parce que je suis la. je suis la. je tey accès bu ma là, je suis là, je suis là, je suis la. je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis la. Cheikh Alima. Cheikh buñ ma gisul sax dañ may wër ci kër gi. parce que ku ne ak ki ko yàlla booleel. ma daw ñëw waxtaan ak ñoom. daw naa ñibbi. bi nga may woo sànq maa ngi naan la fekk ma ci Cheikh Sarr. parce que moom laa am alima laa am ñoom ñooy sama ay xarit nit ñi dañu jàpp ni boo nekkee oustaz rek oustaz oustaz yëpp samay way lañ man amul oustaz buma amul relation oustaz Modou Fall oustaz pap an oustaz Irandaw oustaz harignas ñépp la la wax amul ben oustaz bo xamanteni ni aw ma ak yow man man man gëw ay ay ay ay ay clan gëw ay nangam bëgguma man buma sañon oustaz bu juume ci xam-xam bu ko oustaz corriger direct ci média nako téléphone nit day sagal mbokkam ñu waxtaanee ko ni ko lii nga wax kat nangam bii la mm-hmm. téere nangam indi na ko mm-hmm. bu delluwaatee mën cee wax mm-hmm. mais am na ñoo xam ne ci du ma ni buzz parce que borom xam-xam war naa jomb di wax buzz mais ci siiw jàmbur ci la ñuy wutee siiw yàkkamti nu ba nga juum ba nu <laughs> nde ginnaaw nil ne parfait bu ma juumee ku ma corrigé amul benn problème uh-huh. duma ci waxaat du ma ci jaarat macha allah <laughs> bëgg nañ lool oustaz Mouhamed Mbaye yaakaar naa ñu ngi koy gërëm ci disponibilité bi wax fa dëgg yàlla dëgg yàlla muy ndaw Euh, lu ne mënoon nag ko def ndax dégg nañu mu nettali nu parcours am ak jaar-jaaram kon lu ne mënoon na ko def waaye mu jël diine fi féetewoo ko jël yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam taf ci boppam ba yonent bi mujj gi ndax yonent bi ko taf sa bopp nag mu taf la ci boppam oustaz kàddu gu mujj gi kàddu gu mujj gi daal am na affaire bu reetaanlu alaaji mos naa génn di jëndi reer yoruma lu mat ma dem di jënd cere bu am laalo pour def ci meew pour wax la yonent bi kenn du moom cheikh cheikh bi ma demee ba station yëmbal fàtte benn xale bu jigéen bu ma invité woon anniversaire am may jënd cere dajeeg moom muy jënd ay paquet tàngal mant ma wax ba dee mun ma da nga egsi ci daayira bi ma wax wax ma ne ko li ma sol jiin laa sol sama yaay moo xëy rek ndeysaan 2010 du ma ko fàtte mukk mhm. ni ma yëre tubaab araamul waaye bu ma soñoon nga bàyyi ko laa ko bàyyi mais yaay man maay caatam. Mhm. mun ma Mouhamed bàyyi liire tubaab ngay su liire olof rek. mille 2010. Mhm. laa ko bàyyi yenn saa yi damay kontaan bu nee ma euh, jox ma xaalis comme démb. Mhm. damaa banque man ko ñaata nga bëgg danaa ma xoolal rek man ko noo waxal rek mun ma xoolal rek man ko maa ngi lay jox nangam démb rek moo ci mujj. sama yaay. ma bàyyi yére tubaab gis nga ndaw soosu jiital ma ma dem ci daayira ba naka te yàlla. bis boobu lay xaar alaaji li neex mooy dama ne bi téel ma ceere bu am laalo ci gàttal. <laughs> dem daayira ba commencé fiiri départ rek ñeenti junni taxaw waaw li ma njëkk xalaat mooy borom dibiteri bi am na gan tey eh. <laughs> bi jaay cere moo nar a ñaan ma noonu lay dundee <laughs> yow xaalis bi takkar naa si ma pare yee waykat yi ma fekk ak oustaz yi mm-hmm. ni maire bi may naa la cere ji mm-hmm. def naa ko àddi yonent bi dugg ci dibiteri bi mu takkaloon mm-hmm. daal di jënd dibi sama soxna nag yàgg bi ma yàgg da koy jaaxal ma ñëw indaale dibi jox ko mun ma foo jëlee bi man ko daayira balaa jaar mun man kay bi ma déggee ngay ralli ralli man ko yonent bi ak ma nekk waayam cere laa waroon reere mu ni sama waa du reere cere oh. te yàpp lay reere ndax sama cofeel ci moom sallallahu wa sallam yàlla nu yàlla defal dégg ak topp amiin yaa rabbal alamin message bi may lancé xale yi ci tiktok bi laa koy lancé mm. maa ngi leen di ñaan yéen ñi ne ci tariixa yi mm. dee leen moytu di sànnante ay xeer mm. ndax kër boo fa demee vacances mosoo faa dégg coow mm-hmm. bu fa coow amee xoolal sa bopp mm-hmm. maam Maara Mbàkke nag mm-hmm. moom meññi Cheikhul Xadim moom meññi seex Seydil Xaaji Malik kon maa ngi ñaan ku santul Mbàkke ak si li wajhillaahi boo ci mënta wax lu rafet bu ci wax lu ñaaw nañu moytu yàpp nitu yàlla yi ndax ay tooke lanu wa luxuumu ahlulaahi summun xaatilun wa bi bu'dihim mujri ila al isyaan yàlla noonu yàlla defal dégg ak toog ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah <laughs> dañ koy gërëm moom bu baax a baax oustaz Mouhamed Mbaye ci disponibilité bi ak tamit ci yéene gim nu yéene xam-xam ngir it wax fa dëgg yàlla ngir ñëpp jariñoo tax mu rey tempsam tey ànd ak ñun ci émission Mawlud ak bi yaakaar naa ni ngir rek ñu jariñoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir war nu koy waxtaanee ci kiimaan kese ndax suñu borom da ko yónni mu nekk modèle nekk une référence kon yonent bi dañu war a jàngee ci dundam ngir jagalee ci suñuy dund ngir dundam lépp a jag macha allah ngir kon yaakaar naa ni dañ leen di jox dig daje beneen yoon ak yeneen nawle ustaazam ak yeneen nawle borom xam-xam yi ne ci réew mi incha allahu taala lii waa ji di wax ni ñëpp ay ñam waaye incha allah ñëpp dañ fi jaar ngir ñu waxtaanee suñu waa ji nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir coupe du monde bee xew yonent moo aaye moo waral lépp lépp lépp kon dañ leen di yaakaar avant may tëj sax dama dégg sank oustaz bi muy wax ci soxnam man sama xel dafa dem ci sama soxna ci fa deug yàlla muy soxna Giseli Thiam mi nga xam yeen say day ñewlu ay yére di ma jox danaka di jël copar di ñu jox ak tamit sank mën ta ñak ben soxna ci nga xam ni soxna Amsatou sek nga xamni sa su ne day yëkëti ay yére bu ñu waré waxtané kérok rek dañu waron waxtané spécial Mawlaay Xaaja Xaaja Abdul Aziz ci 14 septembre bi mu ni ma wax fa dëgg yàlla yére bi ma lay jox yére bu bees laa lay jox nga sol ko ci maam Abdoul Aziz bi ma ko woy di ko gërëm mu ni ma bëgg a nekk taalibe Cheikh te it oustaz wax fa dëgg yàlla soxna soosu liggéey bi mu taamu mooy jigéen ñëpp muuru moom nee na jigéen dafa war a muuru wax na dëgg waaw moo tax mu mooy mooy PDG wu euh, am saa hijab fashion kon yaakaar naa ni euh, maa ngi koy ñaanal moom suñu borom def ko jàmm ci barke soppeem Cheikhuna Tidiane Chérifil Fatimi di leen jox dig daje beneen yoon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان